حولك يا معين وبك نستعين بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم فسيكفيكهم الله السميع العليم الحمد لله رب العالمين وصلاته وسلام على من بعث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المرسلين من عجزات الله ومشهد صفات الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا وسيدنا ووسيلتنا إلى ربنا أبي عباس أحمد التجاني الشريف رضي الله تعالى عنه وأن جميع خلفائه رضوان الله أجمعين ونفعنا الله ببركاتهم آمين بكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñu ngi nag nuyu mbokki fi teew yëpp di leen ziar leen masaw di leen ndokkeel ah di yëkkati kàddu nag ci ndigalal waajur wii di sunu lépp di Cerno Bachir Tall fa tabaarakallaahu allah ah, day nii bu jotaay bu tedd bu toll nii bu la joxe kàddu la yëkkati ko daanaka wedem léegi na jëri ko mën a wax fa xanaa keroog la mu waxoon sëñ Abdou Aziz Sy Al Amin radiyallahu taala anhu keroog ca Louga fekk ñu wax ba yàgg ñu ne sëñ Abdou yaay wax sëñ Abdou ni man de xamatuma lu may wax mu ne ko waa baax na boo euh, euh, rawaan bi ñëwagul rek waaye bu rawaan bi ah, mu nekk ni dem ñëwul dara du ko jar. boobu na narwaan bi ñu nekk sama wet ah may jékkati ci sa ndigal insha allahu taala ak sa barke allahuma amin wa di la jotal nuyoo usratu malikiya yëpp di njaboot Seydi Haaji Malick radiallahu taala anhu daka dalee ci xalifa bi di Seydi Aboubacar Sy Mansour ak rakkam yu tedd yi sunu moom Alaaji Abdou Aziz radiyallahu taala anhu si Abdou ñu ngi lay jotal kàddu nuyoo ak ziyaara ziyaara istimdaad fa tabaarakallaahu di jotal nuyoo mboolem kilifa diine ci réew mi ndax macha allah jataay bi jataayu diine la jataayu mbokk la mbokk ak diine la fu ñu wootee këru diine bu nekk waaye dana fa bàyyi ko ngir yàlla jëmi diine ji ngir yàlla jëmi mbokk kon nag njaboot gi su fi bokkee daje doomu soxla yi nekk jataay ko ñoo fa wuutu seen kilifa seen kilifa yi fa ñu nekk ñoo ñu wuutu suñu njaboot ga nekk fa ñoom kon fa tabaarakallaahu taala ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di la masawu di la ndokkeel ci woote bu tedd bii mun sunu mbokk ak sunu soppe bii di Thierno Hamidou Bane woote ka nga ñëw wuy si ko fa tabaarakallaahu am na tegaat ko doom bi tedd ji di sëñ Cheikh Omarul Foutiou ak di sunu xarit di sunu soppe macha allah la maam Alaaji Abdou Aziz Sy radiyallaahu taala waxoon bu asamaan yuugee ba nga mën koo laal waay waay waay góorgóorlu nga laal ndax xamoo kañ lay dellu bu dee la xam ma na dellu seen biir waaye tey fii ci mairie commune monsieur le maire ma jóg jóg yaakaar asamaan yóbbu na fii tey kon nag ñun ñëpp nañu àndandoo laal asamaan xam ni fa tabaarakallaahu bu delloo xamuñu ndax bu fi dellu saat nañ ko fekk kéem waaye yal yàlla mu ñu fekk ay at yu bare bare bare fa tabaarakallaahu Euh, dafa am loo xam ne lii nag suñu borom bi tabaraka wa taala moo ko jagoo waaye dafa mel ni am na ci ay jëmm yoo xam ne yii da koy wàcce ci ñoom ndax yàlla yàlla moo wax ni ala bi zikrillahi tatma'innul qulub ki tudd tur yàlla ci la xol yi di mu ne waaye am na jëmm yoo xam du yàlla waaye bërëb bu ñu dugg yaakaar naa xel yëpp ku tiitoon sa tiitaange ku jaaxle woon sa jaaxle dañ na kon nag fa tabarakallahu jëm yooyu ne bu la yàlla baaxee wërsëgal la nga bokk ñoom jataay war nga sant yàlla kon nag li sëñ bi waxoon sànq nii ñëpp ñu àndoo ko alhamdulilahi rabbi alamin loolu ñëpp war nañ koo fa tabarakallahu daal ngi lay sant bu baax di la ndokkeel fan yee samedi dimanche bii passé ci la ñu defoon fondation Mame Fawade Wellé mi nga xam ni mooy wëyuru Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu fa tabarakallahu ñuy wax ci moom lu bare bare ma yëkkati fa benn kàddu ne ah xam naa ni soxna si bu toggee ceebu jën ba mu neex ba ñëpp di gërëm soxna si naan soxna see mën a togg ceeb bi neex na nangam nangam man nañu bàyyi xel mool ma nga xam ni moo nappi woon jën ba indi ko ñu mën koo ñu mën koo jëriñoo man leen nag ka togg ceebu jën bi mooy Seydi Hadji Malick radiyallahu taala waaye ka nappi jën ba muy maam Fawa bi wele waaye géej gi mu ko nappi nag muy maam Cheikh Omarou Foutiyou radiyallahu taala anhu fa tabarakallahu mu mel ni kon gaal ga wala wala li ñuy wax loolu pour mu gàpp jël onze bi mer mer mooy ah. fa tabarakallah bi nga xam ne moom la ñuy attiré jën yi ba jàpp ko moom mooy sër ba mu joxe woon waaye jën ba nag mooy maxtuume ba fa tabarakallah diggante boobu nag di fi dox bare na macha allah waaye damay wax rek toujours dafa am loo xam ni maam Cheikh Omar Foutiyou radiyallahu taala anhu ak maam Seydi Hadji radiyallahu taala anhuma dañ koo séddoo fii ci Sénégal day wax ni Seydi Hadji Malick ñu wax ni yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci ñaari anam la bijjee mbindéef yi leen ci diine ji bii ñii dafa war fasab jël yi ba not leen dugal leen ci diine ji ñii moo leen yiw moo leen mbaax ba ñu xemem diine ji dugg ci diine ji ba bi xay lii wa bi xayrihi jalabal wara wa liman ajaabu nay la xayri mara kon fa tabarakallahu kon ñoom ñaar nag maam Cheikh Oumar Foutiyou yaakaar naa moo féetewoo bi xayrihi ci dexat maa féetewoo bi xayrihi ñu àndoon noonu liggéey bu fii Sénégal ba la mu waxoon ni la ma la ma la ma jëlee woon Faas mu koy diir ba ci doju Bandiagara xale bii dana ko góor gi tafsir Makkaan ñang cam téeméer moo ko mos wax Seydi Hadji Malick dafa dajeeg moom ci pont Faidherbe boobu Seydi Hadji Malick mi ci daara muy borom kashfu na yàlla dogal muy wàcc pont Faidherbe Seydi Hadji Malick di yéeg góor gi xool ko bi nga ànd moroomam mu xool ko fekk góor gi mu àndaloon góor gi tafsar tafsirul Maxtaar Lo góor gi tafsir Makkaan ña génnee alalam jox ko Seydi Hadji Malick hadiya góor gi tafsir Muxtaar ni ko waaw xale bi nekk ci daara ji rek di di ndongo daara nga yëkkati di jox ko mu ni ko waaw nga am lu ma yàlla woon ci moom damay xam xam naa ci nii la la la maam Cheikh Omar Fouti radiyallahu taala anhu jëlee woon ca bi dina ko jëlee kon nag fa tabarakallahu ànd boobu nag yàlla def ñuy suñuy sëriñ di suñuy lépp fa tabarakallahu moo tax macha allah gaal googu nag ñu doon wax man yi xanaa mooy gaal ga yàlla doon wax rek rabbukum lazi yusjilukumul fulka fil bahri li tabtaxu min fadlihi innahu kana bikum rahim sen borom moy borom boy bu nga xamne da fay jàppi gal ci gel ngir lan li tabtaxu min fadlihi sëñ am taan wax ni sharia géej la waaye wurus ba dikk bir géej nak moy mooy mom lu la ñëpp di wax yoon ba lay yóbbu ci wurus ba nag mooy tariixa fa tabaarakallaahu kon nag la lay yóbbu ci géej googu la la la lay orienté ci géej googu boo mënee fay mën nga dem ba def ci wurus waaye wóorul ndax ba ci biir sa condition physique doyul wala waaye li gën a am sa gaal boo xam ne nga yëkki boo mënee fay egg ci wurus boo mënul fay egg ci wurus ba te gaal boobu mooy salaatu faatee moom sëñ Babacar si radiyallahu wax ñu ni xat jaa ana fulkul najat wa xat na fa an naarata kon nag kaan ñu lay sant bu baax di ñaan yalla yalla yalla yàlla ci kanam ñewal ak sëñ Thierno ñu kay ndokkeel na xewal gi mo ñu ko baax ak ah, li ñu wax legi bu la lek alam na fa gën me coy kon nag fa tabarakallahu yow ñi ñu wo ci bés bi ba ñu bokk ak jataay ak kilifa gu tedd bu toll ni kon nag yalla yàlla nangu lepp képp ku fi tew aajo bo fi indi yàlla na ko yàlla faj am na ñoo xam ne ñu gis leen rek kon aajo kon na yàlla nañ ko yàlla defal ci darajay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci barke Cheikhouna Tijani ci barke maam Cheikh Omarul Fuutiyu radiyallahu a anhu ci barke Seydi a Malick ak mboolem ku la faa taree bi ak sa barke taal ak sa barke mbokk mi nga xam ne mi ngi ci Tiwaawan di Seydi Aboubacar Sy Mansour wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu